waaw man de Mourou Xabane Ndiaye laa tudd. nga ci sëriñ bi. di sëtu suñu Cheikh Jëm mi waaw sëñ bi wàññeeku fi yan témoignage nga indi ci sëriñ bi. ah on a sant rek. ndax métti na te bette na waaye nag da olof day wax ne xandoor bu damboo waar wàcc na te it ku ne xam na ne tey jii li xew bett na ñëpp waaye li tax ma ne xandoor bu damboo si na mooy tey suñu Cheikh Jëmbu ku ne na ne ab liggéey la ko Serigne Touba joxoon Serigne Mountakha mu nekk ci fan yi di ko liggéey yàlla dogal luy xew loolu tax ma xam ndar dem moo ci waar wàcc na si sa jëmu nag doomi Serigne Moustapha Fall la si Moustapha Fall moo njëkk a wutu maam Cheikh Ibra waaye moom si jëmmam dafa doon koo xam ne daa doon a jàmbaar lool am jaarwaay yu baax léppam di Serigne Touba ak Cheikh Ibra mu topp waajuram ba gisatu ko mu topp. ay magam magam ji jiitu nag mooy sëñ Cheikh Fall Baye Góor topp ko ba gisatu ko mu topp sëñ Modou Aminta Fall sëñ Modou Fall ku xam na ni def na ci xalaat ak ñaar ak ñaar waaye loolu lépp sëñ Jëm Fall lu ko na ko war a toppee liggéey bu xew sëñ Jëm Fall kenn du ko ci man kenn du sa jiitu ba yàlla dogal mooy Cheikh Ibra Fall waaye xam na ni moom bi mu doonee Cheikh la sëñ waxoon ne sama tey juree gàccal la sama ëllëg feeñ na ci moom ndax koo xam ne te ji liñ naan takk neer amoo ko ci àdduna waaye tey jii jëf si jëf si kër Cheikh Ibra kenn mënu la ci tey jii fi mu yóbbu yoonu kër Cheikh Ibra si jëf mën na ne kenn yóbbu ko fa ndax mbir mi saa su ne day gën a day gën a neex day gën a dox mu doon jàmbar joom seen ni kenn mës koo dëkk ci dara kenn mës koo xam ci leen lu liggéeyal Sëñ Tuubaa kon tey jii bu luy xewee ñun suñ kaw la dal ñun ñëpp waaye dañuy sant yàlla ndax ñun ñu gëm yàlla lañ lu xew dina metti waaye niñ gëm a yàlla mooy dañuy xam ne lii xew daana xew ndax tey jii maam Cheikh Ibra Fall xam ne moom la ko ñëpp di xoolee tey anamu néew fi sëñ Moussa Fall mi ci def anamu tey néew fi sëñ Mouride Fall mi xam mu la wutu néew fi kon tey ji bu fi jógee loolu day gan si ñun day met si waaye nañ xam nag lii xew moog la ñoo yem ñoo koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy masawu mboolem umma islamique yëpp ñu leen ko masawu du ko masawu mboolem Baye Fall du ko masawu mboolem kër diine yëpp yëpp yëpp boobu ñu kenn rawatina nag ki fi nekkal Sëñ Tuubaa nga xam tey mooy kilifa mooy léppam tey jii mboolem Baye Fall yëpp ñàkk nañ waaye nag ñàkk gi ñàkkit day tax ñu gën a xamaat doole kër Cheikh Ibrahima Fall ndax saa suy yi amee ñëpp dañuy jaaxle waaye Cheikh Ibrahima Fall mooy tànn ka war a taan teg ko fa mu ko a teg ñëpp topp ko mbir mi àgg foo xam ne mooy da mooy gën a yéem sax fi mbir mi ne newoon kon si Jom Fall ñu ngi ko masawu ñëpp di di leen baax nag yéen it. baax ku landee landee landee ñëpp xam na ko ci moom. ku baax la ku. nan ngeen yëgee xew-xew bi. ah nan ngeen yëgee xew-xew bi. xew-xew bi maanaam man damaa tëdd sama téléphone wuyu mu ne ma sëñ bi ni wàcc na ma fajaru dem bàqee après ma ñëwaat sama ko door waaj ñëw fii bàyyi jëmb daal liggéey Cheikh Rafal rek la fi nekke woon lépp Cheikh Rafal la lépp bay jëm Cheikh Rafal la sëñ bi rek ko ñoroon ak sëñ Touba moo ko ñoroon. ñi sant bu wér a wér ñoo ngi sant bu baax a ah, waa sant rek dogalu suñu borom bu see dañ koy nangu rek waaw sant rek barki maam Serap Fall sant rek rafet rek rafet rafet rafet jaaraama moom ah. waaw di ko ñaanal rek suñu borom yokk ay leeram ta suñ ci barkeem yokki ma xaamam ki ngërëmam. ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñàkk bu baax suñu Baay Fall bu baax bu original yàlla na ko yàlla teeru ci àjjana yi gën a kawe ci àjjana yi rëcc fi doon def ci àdduna taas ñu ci barkeem. Euh, di santaat yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ci moom la ñu jóge te ci moom la ñuy delluwaat di julli ci ali salaatu wasalaam tey santaat Cheikhuna Cheikh Ahmad al Khadim di gën a kàttanal ak njaakaar ak bëgg suñu maam Cheikh Rahima Fall te di santaat suñu borom bu baax ndax euh, jëmb yi ñu fi dajale tey muy sëñ Cheikh Jëmb Fall di maam Cheikh Rahima Fall euh, moo fi bawoo tey. ñu ñaan suñu borom yokk ay leeram taas ci barkeem ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam doole suñu maam Cheikh Rahim al euh, ñu leen di xamal nag euh, ku kenn la woon ci àdduna li taxoon mu nekk kenn ci àdduna mooy ku noppi woon la ku jàppoon njàmburam la wante ku doon contribuer ci diine islaam la ku jàppoon ci kenn yu la ku doon dimbali jaami yàlla yi la te kenn xamu ku doon liggéeyal maam Cheikh Rahima Fall la ñu ñaan suñu borom yokki leeram ci barkeem. bàyyi ko dëkk bu ñuy wax Gossas. ñëw fii ci barab bi doon siyaar sang yi ndax euh, ñun yaakaaruñ ko dul sëñ Tuubaa ak Cheikh euh, di ñaan suñu borom yokk ay leeram taas ci barkeem te bàyyi fi sëñ Cheikh Mouhamadul Muntaxa guddal fanam wéral ay cëram ba naal yi mu naal mu àggale ko ba naal yeneen naal barki borom Touba moo ko euh, sëñ Modou Moussa Mbenda mi nga xam ne moo fi wut tey sëñ Cheikh jëmb di maam Cheikh Rafal mu sotti yàlla na yàlla def jàmm barki su maam Cheikh Rafal yàlla àggale nawet bi ci jàmm ak ñëpp barkeeloo ko jërë ngeen